alhamdulilah Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ma sant sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke sant sama sama sëñ Ablaye Wade di sant sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax di sant nag surtout maam Thierno Birame Mbacke Ibrahima Sall directeur SICAP vraiment lii dama koy rafetlu bu baax a baax a baax damay ñaan yàlla yal na ko yàlla yokk si kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke Serigne Touba vraiment màggal ñi moom tey moom ala doome na quoi mais sant yàlla quoi barke Serigne Touba waaw ñaanal naa yàlla Karim Wade am war a gudd fan ak Pape Ablaye Wade di ñaan yàlla nag réew mi mujj suñu loxo si kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu man daal Abdoulaye Wade ñaanal naa ko ñaanal naa ko waa këram ñaanal naa képp koo xam ne bëgg nga yaawu jaar ñaanal naa ñun ñëpp ñaanal am jàmm waaye nag sama ñaan bi lépp lépp lépp daal ñaanal naa Abdoulaye Wade bu baax ak ay waa këram